critique littéraire livre bi ñaari idée laa ci e, jàpp euh, première idée bi mooy approche pédagogique bi li ñu xamoon ci politiciens, mooy da daan def meeting rek di diggee euh, c'est la première fois ñu am benn classe politique ak benn race politicien yoo xam avant ñuy laaj gox bi sax ñoom xam nañu fan lan nañ bëgg a def ci gox bi contrairement à que que politiciens ont xam dañ donc ça en termes d'approche pédagogique c'était euh, important beneen bi le euh, livre bi daf ñuy ce qu'on appelle le plan Sénégal émergent parce que ci diggante facteur de risque bu dugg euh, Covid parce que si on le livre bi suñ analyser registre prospectif stratégique alors prospective stratégie pour que vous ko il faut nga partir d'un diagnostic stratégique maintenant plan Sénégal émergent euh, plan la un programme ak un projet nous avons lal base de prévision donc si nous ñu un am document à long terme il fallait que nous combinions prévision ak euh, prospective stratégique donc lu la koy wan mooy de ñu bindee Tambacounda tey jii effacer effacé Tambacounda def ci Thiès vingt propositions yi dafay valable tamit pour Thiès parce que problème yi Tamba am ce sont les mêmes problèmes yi am Thiès yi am Saint-Louis yi am Dakar etc. parce que euh, proposition la yoo xam ni génnul ci compétence décentralisée communes les mêmes problèmes fii nañu am problème structuration aménagement urbanisme euh, social culturel etc. cetera moo ma xalaat euh, il faut que livre bi mën prétexte ñu inverser les polarités parce que pendant longtemps dañ doon xalaat développement ci kaw pour mu wàcc ci souf non non non les développement day commencer ci souf pour mu wàcc ci kaw parce que actuellement le modèle bi ñam moy mooy bu ma ko doon misaal ci jëm nit moy nit ko xamni ni bopp bi euh, bop bi attanul yaram bi lolu moy Sénégal moy Dakar Dakar moy bop bi yaram bi moy le reste du pays donc dafa déséquilibrer trop entre ngëndaayu et bi ak euh, nooyaayu euh, yaram bi il faut ñu inverser ko pour ñu inverser ko mooy il faut que euh, corps bi ponkal avant que Bobby bi di ponkal pour ñu mën koy te ko def mais il faut que ñu delluwaat ci gox parce que su fekkee élection présidentielle un enjeu de décision de pouvoir de décision la mais élection locale enjeu de développement un enjeu de transformation la loolu moy seen ki bi ça veut dire que développement deug deug bi ñuy xaar développement bi deug bi ñuy xaar transformation yi ñuy xaar nekul sax au niveau ci kaw mais ci suuf la wara nek quoi donc il faut que aussi suñu njiit buñuy investir seen candidat candidats yooyu ñu tenir compte ci nit ñi nga xamni vraiment il apporte des idées nouvelles il apporte des choses yo xam au-delà de leur propre personne de nek maire pour tak écharpe ou le nek maire pour mën a lanen mu nek ay gars yo xam ne liñ leen jox ni am nañ ci xam-xam am nañ ci vision té bind nañ ko teg nañ ko mën nañ ko euh, développer daal. su ma dogal ci dëkk bi à part Dakar Tambacounda moy nek ville économique bi ëpp doole ci Sénégal té dina def Tambacounda ni chinois yi defoon ganzu gis nga Ganzu, bu ngeen fa démé lépp loo xam ni Chine da koy exporter à travers le monde foofu nañ koy defee c'est-à-dire da ngay jël benn dëkk yëpp nga def ko zone franche dédiée à l'exportation tey jii lu tax Tambacounda li nga ko may mooy position géo géographique am ak géostratégie euh, Tambacounda dafa frontière ak cinq pays Mali Mauritanie euh, Gambie ak ñaari Guinée yi tey jii ñun dañu am défi pour nourrir même la sous-région tey ji am yu bëri yo xamné suñu les pays de la CEDEAO ñu ngi koy jéggaani ailleurs ñun mën nañ leen ko defaral donc su boba, à partir de Tambacounda da ngay am ben profondeur bo jalé Mali toucher pays CEDEAO yépp mais à partir de Tambacounda aussi la les Mauritanie da ngay mëna toucher Maghreb dem ba Libye donc actuellement ni zone bi buñ ko exploiter ak potentielam am wax parce que zone la bo xamné ndox amna fi donc ndox fu mu mëna am rek mbay mi da fay mëna dem zone la bo xamné chaleur amna fi chaleur fu mën mëna am rek da ngay mëna def euh, énergie renouvelable L'énergie renouvelable il faut am da ngay day permettre industrie ak société yi ñu ça veut dire que les dotations factorielles am nañu ndox pour l'agriculture, def agriculture mais am nañu aussi euh, chaleur pour l'industrie. def de l'industrie, de l'industrie lu mën nañu ko def de l'agriculture. par essence les deux secteurs d'exportation. donc actuellement nous suñu njiit yi nañuy comprendre né enjeu yu mel qui yu mel Tamba warul nek rek affaire politique politicienne mais dafa wara voir au delà de euh, affaire fii la far ak fee laa far nan lay nekkee ben enjeu national quoi donc suñ ko comprendre noonu danañ xol bu baax ban choix nañu jël ci kan nañ fay tek quoi parce que tek fo ko xam amul orientation stratégique bi mais fi ba 20 ans dëkk bi ni rek lay démé quoi mais indi fi ko xam amna orientation stratégique dina mëna a anticiper pour yombal gouvernement bi mo mo moins mu tek en place les écosystèmes gouvernement bu ñëwé bu investir rek dëkk bi dem quoi